indi tànk la pour wax sénégalais yi ne leen nañu bàyyi xel coalition bi parce que coalition bu mën a jubbanti Sénégal coalition bu mën a teg Sénégal ci yoon la kon bu ñuy voté nañu bàyyi xel ci njariñ li nga xam ne dana ko amal suñu njaboot mais tànk yi ma indi aussi juge dem yi ma indi waa aar Sénégal mooy wane ne Sénégal ñun opposition bi benn adversaire dong lañu ñu war a am muy Ibou Ndafa Ibou Ndafa dong la ñu war a jàkkaarloo Macky Sall dong la ñu war a jàkkaarloo Macky Sall dong la ñu war a jëflanteel parce que nag parce que le dimanche au soir du janvier juillet ngeen baal ma local yi moo nekk sama xel ba léegi Mais au soir du 31 juillet, on a besoin d'une éclatante victoire, d'une victoire absolue pour l'opposition sénégalaise. Je vous remercie. jërë ngeen waa coalition Aar Sénégal nga xam ne ñëpp xam nañ leen ñoom ñoo décidé woon ñëw setsi leen tey yéen waa Tëngéej ñu nekk ci coalition bi yëpp ñu ngi fi pour ñëw waxtaan ak yéen. waxtaan boo xam ne waxtaanu Tëngéej la waaye aussi waxtaan boo xam ne waxtaanu Sénégal la def nañu campagne électorale ba muy waaj a jeex def nañu ñett semaine campagne électorale mu am ay jàngat yu am solo yoo xam ne mën nañ ko cee jàngat jàngat bu njëkk bi mooy ñii nga xam ne ñoo fi nekk tey au pouvoir président Macky Sall jiite leen madame Aminata Touré Mimi Touré jiite seen liste dañu def li ñuy wax forcé burlé ba bokk ci élection yi par force alors que seen liste baaxul dañu bëggoon campagne bi lu mu xumb xumb xumb bu ñu demee dimanche di voté ñu xam ne liste boobu nga xam ne fas bi moo ci nekk te photo Aminata Touré nekk ci list boobu nañu ko jël def ko ci poubelle bi parce que liste la boo xam ne warul woon bokk waa liste boobu waa liste boobu dañ ñu forcé parce que ñoom ñoo am président de la république ñoom ñoo am ministre de l'intérieur ñoom ñoo am directeur général des élections ñoom ñoo moom police ñoom ñoo moom gendarmerie mais na Sénégal yëpp manko xam ne seen benn bulletin warul dugg ci urne bi parce que ñoom dañu war a dem accompagner Macky Sall à la beneen jàngat bi mooy fii ku fi nekk pouvoir mas nga nekk opposition ku fi nekk opposition mas nga nekk pouvoir mu am charte yoo xam ne Sénégal ñun ñëpp dañ ko d'accord mooy ne cumul des mandats baaxul. cumul des mandats mooy nga bëgg nekk maire bëgg a nekk député bëgg nekk ministre bëgg a nekk chef de quartier bëgg nekk président ASC lu nekk nga boole ko defe ne yow yaa mën yow yaay buur yow yaay bummi loolu dafa war a jeex senegal li ma ci jaaxal nag mooy ñi ko fi waxoon ñëpp ne d'accorduñ ci tey ba ñu nekkee situation pour nekk cumul des mandats dañu wax ne d'accord nañ ci li ma bëgg sénégalais yi xam ko waa Tëngéej xam ko mooy képp koo xam ne dañu ko maire toog liggéeyal seen askan ci maire yi te bàyyi ñeneen ñu dem assemblée nationale dama bëgg opération opération Sénégal yëpp xam ne loolu mooy opération dëju opération dëju mooy bu ku fi nekk maire bu la kenn voleel pour nga nekk député parce que nag dëkk boo fi jël muy Tëngéej ak feneen am na ay doom yoo xam ne am nañ xam-xam am na ay doom yoo xam ne xarañ nañ ba ñuy def député maire mooy temps Senghor ba nga xam ne dëkk boo fa dem ña fa mën a jàng bariwul ñu ne la yaay député yaay maire yaay ministre yaay lépp suñu dëkk yi nag bari nañ ñu am xam-xam ñoo xam ne mën na nañoo nekk maire ñeneen ñu nekk député Tëngéej gi nga xam ne nag fi laay waxe tey suñu docteur Omar Cissé maire de la ville de Rufisque dañu lay ñaan nga dëju liggéeyal mairie bi waa léegi yéen fàttaliku keroog ba senegal di gagné d'Afrique le journaliste bi waxoon le jeu est simple ñi nga xam ne dañu fi yàgg mënuñu waa Bennoo Bokk Yaakaar nañu leen jël def leen ci poubelle bi bu leen kenn voteel ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñoom opposition suñuy xarit lañ suñuy frère lañ waaye ñun waa Aar Sénégal suñu list xam nañ ñan ñoo fa nekk suñu liste du liste fantôme suñu numéro un mooy Thierno Alassane Sall suñu numéro deux mooy Soxna Roguyetu Sall suñu numéro trois mooy El Hadj Abdourahmane Diouf suñu numéro 4 suñu numéro 4 mooy Mariam Soda Ndiaye suñu numéro cinq mooy Thierno Bokoum suñu numéro 6 mooy Fatima babal Diouf suñu numéro 7 mooy Cheikh Omar Sy suñu numéro 8 mooy Nogay Diop suñu numéro 9 mooy Ibrahima Ndiaye suñu numéro 10 mooy Madeleine Mendy ku mu neex nag nga liste nga nommé say liste ñi nekk ci proportionnel wan leen Sénégal ne leen ñii ñooy seen député le jeu est simple dimanche 31 juillet aar Sénégal ngeen di voté. léegi bi ci des bi ci des mooy bi ci des mooy ma remercier sama waa coalition bi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñëw nii taxaw ñoom ñëpp lim naa leen ku ci nekk tudd naa sa tur parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. dix list dix bi nga xam ne ñoo war a dem yëngal assemblée nationale du Sénégal Bougane Gueye Dany suñu frère Bougane Gueye Dany suñu rak Bougane Gueye Dany bu Sen TV Bougane Gueye Dany bu Sénégal kontaan nañ ci sa ñëw kontaan nañ ci sa taxawaay kontaan nañ ci ñi nga amee autour d'esprit xam ne Sénégal rek moo yokk moo soxla te Sénégal bu soxlaa mooy Macky Sall dafa war a dem te combat boobu contre la troisième candidature Bougane xamal ni aar Sénégal dina ci ànd ak yow dès premier août pour que président Macky Sall lu jóge fi may lancer message yu opposition bi yépp à partir du premier août amatul coalition ñaar moo fi nekk ñi décidé taal réew mi parce que dañu ne président Macky Sall dafa war a nekkaat candidat ak ñi ak décidé taxawal jàmmi réew mi ne président Macky Sall waratu fi nekk candidat loolu nag mooy opposition te ñépp lañ ci soxla na xam ni jeexal na fégal na bu amoon sax majorité assemblée te du ko am fégal na mooy jeexal na dafay dem bu tabaxoon cinquante stades mooy pare na dafay dem bu tabaxoon ay autoroute mooy pare na dafay dem Macky dafa fégal fégal na na dem bu boobaa nag bu boobaa nag bu boobaa nag ma tëj bu boobaa nag beneen génération d'hommes politiques bu bees tax bu ñu daj ci paket ñooy ñëw waxtaan ak yéen jël Sénégal aar leen ci lépp loo xam ne baaxul ci senegal aar leen ci ñi yàq suñu mbay mi aar leen ci ñi nga yaa xam ne ñoo yàq suñu napp gi aar leen ci ñi nga xam ne ñoo tax mënatuñu lekk suba ngoon ak guddi aar leen ci ñi nga xam ne ñoo jaay suñu pétrole ñoo xam ne waruñu leen ko jaay fexe nag ba Sénégal nekk réewu koom